bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdali alxalqi ajmain sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi wa xadimihi wa man ihtada bi hadyihim ila yawmi ddin ixwat al iman wal irada assalaamu wa rahmatullahi taala bokki jullit yi jàkkarloo ak nun yépp noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara tey am mbegte mu rëy nag ci teew ci studio bi nga xam ne ñi fiy toog ñépp seen waxtaan ñi koy jëmale ci li nga xam ne dan ko seq te war ko waxtaane benn muy lu jëm ci sunu wàllu diine walla lu jëm ci sunu wàllu àdduna rawatina nag la ca aju ci nekkiin wi nga xam ne moom lañu war a nekke fii nun taalibe wala yéen jullit rawatina taalibe yi nga xam ne yéen a gàddaay wala yéen a tukki ci fii ngir sàkku tiraanga ak xiiwal yoo xam ne dangeen ci mën a sukkandiku ba sàmm seen diine sàmm seen ngor waaye taxawu seenum réew taxawu itam yoon wi nga xam ne moom la leen yàlla boole mu yoonu xaadimu rasul ba loolu moo tax nag nu teewaat fii tey wuy si wooteb sunu mbokk di sunu wëlëre di sëriñ Sidi Njaay mi nga xam ne moo baaxoo taxawal waxtaan wi jiite ko itam tey nag tem bi nga xam ne moom la tànn dafa mel ni rek dafay jokk ci thème bi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo yore kuréel gi yor waxtaanu diine ak lépp ci aju ci programme culture ci miika maanaa mam lañu tànnan ren ci waxtaan wi ñu doon def ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ci Nations mu mel ni nag loola mooy lan mooy taalibe bi gàddaay ñëw fii nan lay def ba sàmm pas-pasam muy diineem akuk taalibeem ba dara loo xam ne lu koy yàq du ca tabbi loolu xam ngeen ne benn la ci tomb yi nga xam ne waxan nañu ne première vague wala génération bi nga xam ne ñoo njëkk a génn bitim réew ci taalibe xaadima rasul bokk na ci yóbbal bi nga xam ne cheikh Muhammadul Mortada ak doomam ju baax ca sëriñ cheikh Ahmadou Mbacke yóbbalan nañ leen ko te mooy fexe ba sàmm bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom lañu fi indaale te mooy seen pas-pas su ko defee loola dafa mel ni it gannaaw boo xamee ne ñépp la war ñépp ci war a bàyyi xel rawatina ndaw ñi ndax mag ñi nga xam ne sax bi ñu fii ñëw eh, ni ñu war a mel népp fa tabaarakallahu yàlla baaxe ne leen ba ñu mel na ñoom seen yitte xëy na ma ngay jëm ci sàmm liñ fi indaale woon lu metti la it sax moom lu jarat taxaw lu aajowoo yitte ju mat sëkk waaye nag ndaw ñi nga xam ne nag ñoom bi ñu fiy ñëw nañ war a mel népp melaguñ ko woon ñooñu ñoo war a gën a jëme seen yitte ci luy aar seen pas-pas boobu ndax ñoom ñaari warugar daf leen di war mooy yittewoo fexe ba la matutoon wala la manqué ci niñ war a mel ak liñ fi war a indaale war nañoo def seen yitte ci mottali ko boole ca nag fexe ba aar liñ fi indaale ak liñ fi amee ba dara loo xam ne E lu koy wàññi wala lu koy xajamal du ca tabbi moo tax nag dañuy dugg ci bayit bi nga xam ne wala ndénkaan li nga xam ne xaadimul Moustapha dénk na ko ndaw ñépp muy ña nekk ca réew ma ak ñi nekk ci biti réew ma muy yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu ndaw ñi maa ngi leen di dénk ngeen bañ a am soxla ci lenn lu dul am ak njub ak luy maye ak njub waaye su ko defee itam ngeen yittewoo nag xam-xam mel ni kon dafay wane ne la jiitu ci li ngeen war a yittewoo pour am njub googu ngeen wërta mën a ñàkk moo di xam-xam xam-xam it bi mu koy wax dafa wax ne dafa jëfandikoo baatu al muy bépp xam-xam boo xam ne kon dafay ëmb liy defar diine yi nit ki ak bépp xam-xam boo xam ne liy defar adduna yi nit ki muy science bu aju ci wàllu diine muy buy taxawu diine di ko defar ak science boo xam ne day yéwénal mbiri àdduna